may nañu indi mooy 30 secondes président Bassirou Ndoye président écurie Yoff président écurie capitaine Dina Papa Silla waaye tey yéen tey jii neexul la yóbbul président Bassirou Ndoye yóbbul Papa Silla ñaar ñii bëri sa université si loolu lan la loolu xanaa ay ay nit wax la yal na leen yàlla dafa jàpp jërëjëf président Pathé kon nag bi Cheikh Kaay Capitaine Diena Kaay allo waaw waaw chef waa école noo ko doon de waa Daaru Xudoos alaaji ci sama gaay donc nayu baara jàpp yéen mu ngi noonu ñu leen di présenté capitaine Dina ay noonu yëkkati na loxoom capitaine Dina écrit Yoff <laughs> ma ngi noonu ay mbooloom jug nañ Cheikh Super Jamono écrit Mor Fadam Janaka Kema ñëw Masako ah waaw bàyyi fa ya ay président mata mata ya ma bàyyi fa ya Masako ya mu ngi noonu nag capitaine dina ne xono dam fomp dafa niin arbitre dañ la topp ba nga sos Mour Anta la borom sans frontière sama xarit bi. man doo sama xarit man dama laa nopp kookoy soxna Mbacke <laughs> soxna Ndeye Mbacke sama sëriñ bi. waaw Ndeye lay jël noo ko gisee. capitaine dina capitaine dina bu yóbbu. xale yi buñ daanee yàq bu ñu daanoo yàq. waa Ndeye mooy li rek lamb mérito wul lamb gradé bi lañ mérito ñu ciy toog seen toogukaay yi di tàng jër maa la ko parce que na nationale bi ñu ko tabaxee ba mu yegg footballeur yi dañ fi ñëwee sportif yëpp bi ñu fi ñëwee dañ ne lamb mérito wul lii kon nag dañoo sédd ci gaalu xaj fekk ni ñu ciy lekk. loolu def lu ñaaw la. lu ñaaw parce que mënuma concevoir tey bu say supporter day yàqu doo leen calmer arbitre sifflé na. anta ñu ñëwaat léegi arbitre sifflé na diggante Cheikh Super Diamono ak capitaine dina. 19h25 11 avril 2021 Mouniang production cey Mouniang combat de la relance comme ni ko sama papa di waxee Ibakan ne na combat bi ku ci daan dana la ubbil porte yu bare bari bari bari Cheikh moo fete suñu càmmuñ moo ngeen moo ngeen lu bëri car cari rek <laughs> kenn xamul ngeen bi nu mu tudd waaye capitaine dina mu ñu fete suñu ndeyjoor ngeen moo ngeen lu am ay sengoor yu weex arbitre ba sifflé na Cheikh Super Diamono arrière na ñëwaat na ñu ngay lewtoo ñaari mbër yaa ngay lewtoo cey lewtoo mbay Babacar maa ngi lay nuyu borom nangaan sàmb Assane Waalo borom dëgg la mbay maa nuyu Cheikh Super Diamana ngay arrière ñu ko ah capitaine dañ koy accéléré lewtoo ñaari mbër yaa ngay lewtoo Bilal Cheikh Super Diamana day gàtt ba mu nekkoon mu njool jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu laa Cheikh Cheikh Super Cheikh na Cheikh jël na ñaari tànk yi génnaat na mu ngi mu topp na topp na ko capitaine dinaa def nii capitaine dinaa la nii daa capitaine dinaa daan na sax si bopp jamono lu bi wax lu arbitre bi bi wax laa capitaine dinaa daan na Super jamono lamba ja jeex na capitaine dinaa écrit Yoff daan na Super jamono écrit Mor Fadam lamb ja jeex na da ngaa a signalé. signalé amul signalé la bi déglu ko. ci lamb signalé bu njëkk. Tyson daan na ko def xoolal waa Géejawaay. Cheikh bañ na Cheikh bañ na. capitaine dina. yow dama sant rek benn équipe moo fa ne dañuy liggéey bu baax bilaahi. wóor na rasulilah bilaahi walaahi. wóor na yàlla. ñun ragal ñu xeex barke alxuraanu karim moom dama bëggoon mu taxaw ñu xeex dafa gaawul dafa teel a gaaw daw mais bu taxawoon dama koy dóor ma daan bilaay ah waaw xam nga gars yi nañ ma jël gars yi ma jël doomu dangu gars yi non mu dem di jël ay xale ñi mu jël nii ñi mu jël ñan la benn écrit moo fa ne combat bi six jours laa ko jël gaa yi teg ma lu métti billaahi wallaahi taala li ma teg wóor na yàlla même ma ne kon nga jëm

Cheikh. Cheikh am na lu ko naqari. Eumeu Sène Junior a ngi koy defal. Cheikh super jamono kii Mor Fadam. nee na capitaine dinaa dafa niin. te bi la lamb daa métti. ngay wax ba sa fut bi barke Serigne Touba. capitaine dinaa daan na Cheikh super jamono. ma ngi noonu nag Bilal ah 11 lii la fi moo Modou Niang indi woon Cheikh Super Jamono écurie Mor Fadam capitaine dina écurie Yoff capitaine dina moo jël raaw gàddu ko moo am ndam ci nga xamante ne ni mooy Cheikh Super Jamono daal di koy daan jël bu benn werante kii di Cheikh Super Jamono nag mu ngi contesté nee na capitaine dina dafa niin moo tax mu def signal mais ba mu signalé nag arbitre ko ba ko tontulee waroon naa a continuer bëre waaye continuer wul dafa bàyyi adversaire mu bëre ci daal koy daan verdict nag daanu na Cheikh euh, capitaine dina jël na ndam li kon noonu la ñuy def dañuy daal dem ba beneen yoon ci beneen événement mu ngi noonu mu ñang production la woon Leewtoo TV la Ndeye Mbacke Diop ak Bilal jaajëf.